وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والزبور وجهت كلي بحمد laysa yakunu musliman ya zaman

parce que liggéey bu yaañ bi ñuy def nii. waa tey sur fondation bu mag bi. ah. ànd ko suñu jigéen BK ah tab borom këram. mu ngi liggéey ñu ngi nii ci hôpital Fann dugg ci maladie di joxe ah. ñu jox gaa yi nekk foofu tamit jéem a ndogu ah. vendredi bi di ñëw ñu ngi prison yi ah. incha allah <laughs> au lay <laughs> wax ci affaire bi. non man la wax <laughs> ñun lii la ñu wax ñun. lii la wax délégué ba leneen ñëw ñëw. وذلك والسد والسد والسد على النبي وآله والمؤمنين رد مكائد الإله إلى الإله يا من أباني بموجد الإله أمرنا مدى لكل محسن ومحسنا على مسارات تراب مستحسنا وجيل أمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من مجيد ñu ngi ñu ngi hôpital Fann gis nga malade yi ñu doon jox noonu nga xam ne yittewoo nañ ndogu lool heure ndogu day jot duñ ñu du ñu am fu ñu ndogoo. kon waa tey assurance sur lii ñu lu am solo la. ah waaw na ci ja gaa yi génn. liggéey ci waaw. fii waaw. يقود لي كن فيكون هادي منك بلا يمل ولا تهادي نفيت إبليس لخير أبدا في زار زاوي

amiin hmm. ñëw. yal na leen yàlla teral doom. amiin waay amiin yaay boobu ñii aw ma woon mburu. amiin yaay boobu mburu. waaye indil ngeen ma mburu. indil ngeen ma ndogu. yal leen suñu borom bi fay. yal na leen yàlla fay. yal na leen yàlla teral doom. foo leen jublu yal na fi yu yàlla jublu. barke Seydina. délégué eh, délégué kaay may ko ndox bu tàng. jërëjëf doom jërëjëf. ñu ngi nii amuñu xaalis amuñu dara amuñu. ñu war a fay hôpital amuñu lu ñu fayee jërëjëf doom foo jublu doom yàlla na fi yiw yàlla fii nga ma jëlee lii yàlla na fi ilaha illallah اليوم فانسراجها ana café gi. yàlla yàlla fekk. loolu si tur bi. borom affaire bi dem ma nekk ay milliards milliards milliards. amiin ci fekkee ko si bari si naat salaay salaam. vraiment am na solo lii dafa am solo. yéen a ngi def lu am solo macha allah. jërëjëf amul waaw. loo bëgg café. waaw café waaw. café.

ñun ay xale yu ndaw ay daanaka suñu morom la def na yàlla tax parce que ñun tax a jóg dara taxul dafa def ñu taseeg sa yaay booy ñu expliqué ñu dafa am na ñu demee de ñun ñii ñëpp ku fi toog ñun ñii ñëpp am nañu ay jafe-jafe yu nga xamante ne bañ nañ koo kii te am na nu muy demee bu ñu gisul ku ñu geesu ginnaaw duñ ko mën a def yaa ngi dégg tey àdduna lépp loo gis dimbalante la góor jàpp ci góor ñëpp dem comme ñu ko expliqué nag nañu ordonnance bi ñuy ci dix mille et quelque je daanaka lii waruñoo mën a tëj ci suñu mbooloo fa la ñu moo tax ñu jënd ordonnance bi mu wan ñu lii mi ngi toll ci valeur bi trois cent mille francs du ñu ne dañuy def trois cent mille francs yooyu yëpp parce que amuñu ko parce que bu ma ko bu ma ko amoon man kase dama koy jël man ma def ko yaa ngi dégg man ma ko amoon nii jamono jii ma toll nii man kase dama koy jël ma def ko waaye ñu def suñu kente lay kàttan lépp luñ ci am lépp lu ñu am muy nangam ak nu mu munti doon danañ ko jël jébbal ko sa waajur ngir nga mën a jug ci lalu hôpital bii. incha allah ndax lii képp moo ci tax a jóg. yow ndaw la da war a liggéey man ndaw la maa ngi nekk di liggéey te yow da ngay liggéey pour jàppale sa yaay man maa ngi liggéey pour jàppale sama yaay kon buñ la mënee jàppale yow pour nga jub fii pour mën a liggéey jàppale sa yaay incha allah bu soobee yàlla incha allah defuñ ci ngir ngistal defuñ ci dara dañ koy def da yàlla tax fii sa biir yi ndaay ñun daf ñoo jox tuuf moo ñu jox tey sibu ase jàppandal lu jafe yoo xamante ni dañuy def ay ngir te gisoo ku ci dem ci hôpital ñu ngir mun dem ci ay ngir dem ci prison bu ñu jógee ci prison lañ dem te bu soobee nañ ci def suñu kente lay kàttan lu ñu am même bu dee deux cent franc la sax danañ woo sa yaay ne ko deux cent franc ñu am bu ñu amutit dinañ ko woo ne ko ah yaay boobu nañ ba sonn waaye yàlla mun ñu waaye lii yéene la boo xam te ne ordonnance ñun ñoo ko jënd amul benn problème du dara te bu soobee lépp lu ñu amee bu soobee dinañ ko def incha allah incha allah jërëjëf